بسم الله الرحمن الرحيم ندم تي حديث ابن تلبي جم جمرك رك تي بونك الإسلام بونكامي ولا كنومي غا خمنا تي لن كتب أخي الإسلام دائما من لبرون أمبار ولا أبنك جرو مكنا يوي موي غا خمنا تني موكو تي كو الإسلام دق دق دو مات دا با تنكو جرو ميوي رك عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم ki solo hadith bi moy abdullah doomi omar ibn al-khattab yal neen yàlla dole gërëm ñom ñaar ñep muy abdullah ak bayam bobu di umar mo ñu andil hadith bu am solo bi comme hadith yonent bi yep hadith bi nga xamne ñaari cheikh yi yep solo nañ ko muy bukhari ak muslim neena deug na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne l'islam de sos nañ ko ci juróom yi tabaxe nañ ko ci juróom yi juróom yooyu mooy yan bi ci jiitu shahadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bu njëkk bi mooy nga xam ne lislaam bu doon ci liñ ko tabax nga xam ne nit ki balaa mën a nekkub julli dëgg-dëgg day dugg ci biir tabax boobu mooy yi ñuy waaj a wax mooy tabaxab bi nga ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi sallam niroleel bi ci njëkk mooy seere ne amul benn buur bu yàlla seere amul yàlla kenn la yonent bi nga dëggal ko dëggal yónni ko yàlla yónni ngeen xam ne gëm yàllay kese te gëmoo yonent bi amul njariñ ñaam ñaar ngay gëm mooy tax sa gëm mën a mat kon bi ci njëkk mooy seere ne amul benn buur yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa yàllaa ko yónni mooy ki mujj ci yonent yi ab yonent yi dootu ñëw ginnaawam bi ci topp mooy iqaami salaa mooy taxawal julli mooy sàmmonte di julli ci ni war a jullee julli ci waxtu yi di ko doxee jullee niñ ko baaxoo jullee julli gu mat sëkk sart yëpp nga indi ko sàmmonteeg ponk yi teggin yi mooy julli niñ baaxoo jullee rek loolu mooy julli kon moo ci topp julli lu am doole la ci lislaam xam ngeen ne bi mu indee ñaari baati seer yi ngay dugg ci lislaam rek julli la ci teg ita is zakat teg na ci natt asaka joxe asaka qad aflaha al muminuun lazina hum fi salatihim xaashi'uun wa lazina hum lazina hum li zakati faa'iluun teg na ci natt asaka natt asaka mooy jullit bi bi mu yoree alal joo xam ne asaka war na ci ci lim bu mat asaka mooy lu mat nisaab te sart yëpp daje ci moom na joxe asaka joxe asaka ci ponk lislaam la bokk جلد كون بو خاني سارتي جخي اسكا داجنا سي موم با نوبي جخي كو الله يعز بالله تعالى انا خامني باينا بونك بو بوكو ديني دا نني ان شاء الله سي بونتي فقه ييب ني ني بوجا جان ني جانغات فنن اتيب كو باي يي ني واج واخ نا بونك لون لا الاسلام واخ سي يو يالا نغي تاغ كو ولا جنهم للزكاه فاعل دفنا واخنا كو ليغي واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان متك ليغا خاني موي اج aj market comme li ñuy wax ci asaka rek jamono aj bu ñëwee ci yalla dogal ben ngant lu wara tax lu wara nga dem aji am su boba ba tay nga xamné aj ponk la ci ponk l'islam yi kon boko mané ndax yalla dako acc ko man am wër gi am katangi gi am alal ju la mëna yobbu dikat nga dem it am gi nga xamné man la kiyal ak wër gi ba lepp charte yépp dal na dajé war nga aji makka wala yaasu billahi taala rafetlu wuñ nag loolu kon nga am ko ba noppi am alal toog di xaar leen sart yi daje ca woon toog di xaar leen kom aj makka ba tey ngeen xam ne ci farata la bokk walillahi ala nnaasi xajjul bayt mooy li ñuy waaj a si incha allahu taala balaa yàgg léegi koor weeru koor ba tey ci faratay la bokk yàlla nee na shahru ramadan lazi unzila fihi alquran ba laaya ji jeex jaamu yàlla la gu am solo lool gu am njëriñ xam naa dinañ ci gën a dikk dëgg-dëgg koor ak ni demee dëgg-dëgg ci bunti fiq yeneen yi ci des incha allahu taala ak lim nekk ci njëriñam kon ngeen xam ne koor bari na ay njariñ doy na sëkk rek ne ponk la bu bokk ci ponk lislaam yi lii nag kon mooy ponk lislaam yi ngeen xam ne kon li gën ci jullit jullit li mu war a def mooy yëpp la war a andi balaa man nekk jullit bu mat sëkk-sëkk waxuñ nag nga def bii bàyyi bii waaye nga def bii bàyyi bii jubluwuma ci mooy nga def bii man ko bii ci des nga bàyyi ko noonu rek wala nga ñàkk ko gëmul aliyaasu billaahi taala mooy yëpp ngay boole fa nangu boo ci weddi wala aliyaasu billaahi taala doob jullit moo nga weddi yëpp rek ñooyam yëpp nga war a gëm def ko bu ci nekk bu fekkee sàrt yi daje na ci yow danga ko war a def waaye nag gis ngeen bu ci nekk sart bi nga xamante ne wax nañ ne mooy tax nga man koo def ndax lislaam bu caageen da nga koy xaajale mooy seet la ci neex nga jël ko li ci des nga bàyyi ko déedéet da ngay defandoo yépp niñ la ko digale bu ci nekk rek bu sart yi dajee ci yow mawaani mooy li tee nga war koo bàyyi amut ci yow da nga koo war a def lu ci nekk rek incha allah ci bunti fiq yi danañ gën a leeral atteb ku julliwut ku ko tey bàyyi julli ak ku ko bàyyi ngir tayal danañ ko indi ci asaka it ku lànk ba ñu jox asaka niñ ko war a def Euh, ku bàyyi nga aj màkki dañ la wax lan mooy atteem ni ki noonu ba tey euh, ba yëpp jeex xam naa ku bañ a wax ashadu an laa ilaaha illallaah nag moom ca tey ko kooku dañ naan day mel ne rek duggagut ci diine ji moo tax euh, bu fekkee amu ci benn gànt mooy ku mën a wax la wala yu mel noonu kon loolu mooy bind bi nga xamante ni mooy bindu ñetteel bi ci xadis wa billaahi taala